élection de paix élection de transparence et inclusive tout candidat qui aspire à être candidat à la candidature te mu remplir les les les les hmm. prérequis mu mën a hmm. bokk ci élection bi pourquoi hmm. c'est Ousmane Sonko tey yoon moo ne jox leen ko fiche de parrainage mais jox un ko jarul ces déploiement de de police là dañoo am police. fenn policiers yi mën nañu leen yóbbu fenn parce que fii liggéey ñàkku fii balaa ñu leen di Ils ñuy bunkeriser toute une administration

avocat bu mag la lépp lu mu wax rek da koy teg ci droit. teg ci mm. yoon. Mm, mm, te dañ koy encouragé. te aussi wax yàlla c'est un modèle d'avocat. avocat bu sérieux la. bu baax la ku baax la aussi pour dire la euh, parce que am na expérience te aussi sénégalais yi aussi ko war a euh, li muy def nii aussi dafa ko kiir euh, du question liggéeyam kese mais da koy def ak amour. que moom ne day défendre client am si benn côté yam ci. mais à fois dañuy gis ne dafa nekk ci wetu client kon dañ koy rafetlu. te aussi nañ ko encourager na ko ñëpp encourager ci liggéeyam. wax na dëgg pour di la vérité wax na dëgg man dama koy wax tout le mm. temps man si li ma euh, li nga xam ne moom laay tënku chaque mm. fois mooy juge jox na dëgg Ousmane Sonko. Mm. nañu jox Ousmane Sonko ay kayitam. point final. man loolu moom laay wax tey moom laay wax suba. concernant comme li wax ci côté bay liim peut-être yenn ancien président. xam nga man euh, man dama naan euh, Macky Sall dafa di génn. di wax askan wi tout le temps. mais Macky Sall. communiquer avec son peuple saa waxee rek ay fin d'année la. wala peut-être ay 4 avril indépendance wala peut-être comme genre yi ay damay nek candidat du ma nekk candidat Macky Sall dafa war di guen chaque 6 mois di tenir un discours di wax ak citoyens yi di dalal xel citoyens yi Macky Sall des fois sax damay deg sax euh, yenn yenn nit ñi nan Macky Sall gars duñ sax défendre projet yi def xam lu tax parce que il a pris des gens yo xamni euh manam dafa def mauvais choix.

nekkat man ba ma fi toogee 2012 ba tey def naa fi lii lii laa fi digee woon lii laa fi def mais defuma fi lii lii moo tax defuma ko fi mu justifié wu ci loolu. Hmm. mais kaataa topp ay kii mooy sama kandaa kii du ne sama candidat. Hmm. loolu da koy day yàq image am ëllëg. c'est te im te jàppal ne euh, Amadou bu échecgee Macky Sall moo échec. Hmm. parce que lépp Macky Sall la. moo choisir candidat am moo moo si ay rumeurs damay dégg ñaan directeur campagne mag Amadou Ba xamul un président. dem ba sa mandat jeex nga ne da dem nga revenir en arrière ah, da ngay nekk président euh, directeur campagne benn benn sa benn candidat loolu man dama gis ne euh, je ne sais pas quel est problème mais. peut-être nga xam ne ñoo ñoo ñooy gérer ñooy gérer communication ak. ay ay conseils waroon nañu ko conseiller ne ko. Hmm. Euh, waruloo sax choisir. dafa waroon bàyyi waaw devient un loolu bu dee loolu aussi ay conseils. dañoo daanu bi la bëgg a sauver. waaw loolu ak mënul am pouvoir pouvoir pouvoir pouvoir hmm. ba na Sénégalais yi voté leen Amadou Ba force. ok c'est clair. déggoo man la Amadou Ba bu ko Macky Sall choisir woon si le ëpp sens fukki junne ko Macky Sall choisir ko. Hmm, grand way hmm. ñëpp ñu ngi naan voter Amadou Ba égal voter pour euh, égal kii euh, soutenir kii troisième mandat. mais ku ku ku naan ku Sénégalais yi ñoo toog ne troisième mandat dafi am. da ngay gis koo xam ne ni Macky Sall la ànd ak APR 100 pour cent la mu ne. Macky Sall bu ñu laajteetee troisième mandat du ma ko voté léegi Macky Sall ne moom laajtutul troisième mandat en personne. mais dafa am ku muy samp pour mu laaj mu mu remplacer c'est-à-dire kon troisième mandat bi nga xam ne moom la bëggoon Sénégal yi nag doo ko fi amee léegi mooy da koy dénk beneen personne te personne bu mu koy dénk du personne boo xam ne nii personne bu sain la c'est-à-dire personne boo xam bokk ci gouvernement bi benn genre euh, kii la agent d'état la rek mu ñëw teg ko son premier ministre la jël son premier ministre ñëpp xam na ne premier ministre ak président ni lañ def dañoo kollante kon tey amul Macky Sall lu muy def amul Amadou lu muy def si suba ba ci ngoon lu jëm ci wàllum liggéey te doo rendre compte Macky Sall. dëgg c'est clair mi euh, kon cest kon ak lu mu mënti demee rek euh, fàllu hmm. euh, damay damay ñaaxal Sénégalais yi. Hmm. ñi bañ a def erreur. def erreur yu weesul mooy ñu bàyyi ba deux mille vingt quatre incha allah war bu ñu fi yàlla bàyyi ñu voteel benn nit ngir maa tey parce que hmm. ñàkk pexe. wala ñu dem dem defee leneen loo xam ne nii waruñu ko def. ok nañu xool ku ñuy voteel. ñu xool koo xam ne nii kii ëllëg du ñu du ñu jaay. ëllëg dana xool njëriñu réew mi intérêt réew mi te képp ki nga xam ne da nga ko war a voteel xoolal CVM xoolal parcours am. Mm. xoolal mooy kan. Mm. man mi di wax yow de wax dëgg fa yàlla candidat laa comme ñëpp. Mm. mais euh, dinaa def euh, d'ici quelques jours benn communiqué pour wax sama décision finale. incha sama décision mooy damay continuer wala maam fu ma benn benn keneen ku may ànd ak maanaam moom ñu dem. mais Sénégalais képp ku ñuy ànd ak rek nañ ko xool. ñu xam ne réew mi mais doo ñu may scoop bi. ah hein? doo ñu may scoop bi.

dañ ko war a liggéeyaat. Hmm. léegi nag su ma nee tey bay lig ba si ba si ànd ak un candidat wala ma ci ànd ak kenn damay kool kenn koo xam ne nii man moom mën nañu partager. si mais mais du doon un candidat au euh, wax dëgg fa yàlla euh, loolu du ma ko waxagum mais bu fàttali ne fàllu. mais man membre de FIT. ah FIT ah, euh, lu may génn FIT noonu. que doon. te FIT bu FIT dama fa signé un document. Hmm. nek ci groupe bi. Mm. bu point de presse amone léegi léegi fit suma ma fi dama fay dem taw ci écran yi gis ne xamne ne fit la bok mm. te dama jé sama responsabilité à 100 hmm taw pour défendre les intérêts fit parce que fit fa la bok te dama ko dama ko nié. dama ko bassa sax won na ma sax d'accord nit tok sax di wax dara wala di yak dara fit parce que man membre fit la te dama koy assumer mm. kon le moment venu ha tok fi ci presse bi.

man ëppal na ay parrain. ok ok man parrain na ma ko yor. si la si la numéro ñaata la chiffre combien. 169. 169 waaw di si gërëm di gërëm ñu may. man dama man dama dama toog dama toog sama damay toog sama bureau. Mm. ñi may indil. te ma na may indil ay man parrain man man parrain dëgg man la man parrain xalaatu woon parrain man xam laa xalaat euh, njariñu askan wi. ok njariñu réew mi. Mm, mm. man su ma nee ma ne damay damay damay foncé. du ma xool sama intérêt personnel mais damay xool intérêt réew mi. du ma ne man kat am na ay parrain damay dem sax saxay dem fee dem déposer ñëw ne déposer naa combien de candidats faux candidats yi nu ñu koy defee. Mhm. y a des candidats yoo xam nii seen intérêt bopp moo tax ñu jug. mënuñu sax diriger seen biir kër bay diriger. Sénégal c'est clair. kon sénégalais yi nañu xalaat bu baax ka la ñuy votel kan la ñuy jox réew mi ëllëg nañ ko xool bu baax. ok ok donc maa ngi jégalu si seen temps yu ma jot. <laughs> donc dans quelques jours di xam exactement ma xam. Mm. Euh, da euh, déposer ce caution kon ma xam rallier aussi kenn. exactement, exactement peut-être tu nous as vendu la mèche tout en disant que ni da nga bokk donc fit sûrement dina dam rallier aussi opposition merci beaucoup Alpha on se retrouve jeudi Inch'Allah, c'est bien 17 18. oui le rendez-vous est pris fallo de la jaajëfal. di hmm. jaajëfal euh, Vieux Vietcham qui est le candidat à la candidature <laughs> sous ce fois sous réserve peut-être en attendant l'exclusivité hmm. donc maa ngi koy nuyu au passage d'Ignan, aussi sénégalais liñ fi wax lo xamantene peut-être ki kiiwul jumte la yef doomu aadama la voilà du aussi nuyu l'ensemble des équipes en régie de 5 TV. di mm. ak sénégalais yi sétane fi Sénégal ak euh, bitim rew réew. Mm. alors merci beaucoup euh, merci beaucoup aussi Vietiane on se retrouve euh, jeudi incha allah. waaw jërëjëf Fallou de toute façon. Mm, euh, ma ma wax foofu rek maa ngi jégalu bu baax. di wax ne boudé fi fii wax naa ci plateau bi li nga xam ne métti na parti pouvoir ma ngi jégalu boudé aussi li ma wax. métti na parti parti. parti opposition bi aussi maa ngi jégalu parce que man sama sama may wax damay wax ngir intérêt général waxuma ngir intérêt personnel waxuma man caan kese di gërëm ñëpp nag di sant ñëpp surtout mm. ñi ñu doon seetaan mm. di ziyaare aussi euh, Nous, képp ku nek ci réew mi ak ci diaspora bi. Mhm. di Sénégal 5 di wax né man Sénégal 5 personnellement man moy sama choix man. Mm. man Sénégal 5 la seetaan. voilà Sénégal 5 merci beaucoup merci beaucoup Vieux merci beaucoup Arfan pour li nga xamné que modi jangatu euh mardi bi jeudi Inch'Allah, on se retrouve pour un autre numéro de votre émission 17 18 vous suivez un programme euh, sur les antennes de Sénégal 5 TV quant à hmm, dans une heure de temps c'est une ribari, suñu mu gën inchallah bon incha programme. É bonne soirée à tous et à tous.